salaamaaleykum mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral nu ngi dellu di sant yàlla ci li nu mën a teewaat fii di leen dégtal seen émission bi ngeen sopp di yoonu njub yéen a ngi fàttaliku ne ci sunu njàng mi weesu ci fukk ndigal yi yàlla dénk yonent yàlla Musa nu ngi toll woon ci juróomeelu ndigal li fi yàlla naan teralal sa ndey ak sa baay muy ndigal loo xam ne kenn du werante amuk solom ndaxte ci aaday réew mi bokk na ci waree fi doom teral waajuram te it képp ku ko mat ndey walla baay mu jox ko cër ba waaye gisoon nanu itam sasu waajur yi muy sas wu am maanaa ci yaru gune yi ngir ñu mel na ca war waajur wi nga xam ne nag fexe ba doomam nekk ku dégg ndigal te am wegeel ci ñépp te ko warula xàddi dafa fekk rek ne faaw yow ci sa bopp nga jëkk a nekk ko jub fa kanam yàlla loolu nag gisoon nañu ne almasi bi yéesu rekk mooy pexe mi tax mu mën a nekk ci yow tey nag ci juróom benneelu ndigal li lanu fas yéene jàll yàlla dafa ci wax ne bul boom muy ndigal lu gàtt waaye am solo lool ci yàlla ak ci nit boom moo di rey nit ci tayeef lan lanuy gis ci àddina si nu nekk dafa mel ni nit ñi faaleetuñu waxu yàlla ndax nit a ngi jóg dal ci kaw moroomu nitam faat bakkanam kanam mbaa mu rendi ko ni ñuy tëre am xar aw xeet jóg dal ci kaw weneen xeet faagaagal ko am réew jóg song meneen réew faat fa bakkan yu jotewul dara ak mbir ma moona nit du moomeelu keneen ku yàlla aji sax ji kese am sañ-sañu ci ruuwu nit waaye lii lépp dafay woneeti ni nit tooñe boroomam ci fexe sàcc sañ-sañ bi yàlla jagoo moom kepp te sax boo boomee nit yemuloo rekk ci tooñ yàlla waaye yaa ngi fësal ne faale woo ko ndaxte yàlla dafa sàkk nit ci melokaanam gën koo fonk ci lépp li mu sàkk wante nag ni ko wolof njaay waxe daal noonu rekk la janax du jur lu dul luy gas waaw ndaxte boo gisee lii lépp li ko waral moo di bàkkaar bi nekk ci xolu bépp doom aadama mooy bàkkaar bi nu doonne ci sunu maam aadama mi jëkkoon a fippu tebbi santaane yàlla ca toolu àjjana ay doomam juddu donn bàkkaar ba te loolu kayin taawu aadama fésal na ko ci li mu rey rakkam abel kayin daldi nekk noonu ki jëkk boom nit xëy na yaa ngi naan waaw waaye man loolu soxaluma ndax mësuma rey nit te it fasuma ko yéene sax su fekkee ne loolu mooy sa xalaat nga baal ma waaye juum nga ndaxte bu nu gëstoo ci kàddu yàlla danu ci gis ne rey nit du faat bakkan rekk gën naa xóot loolu mbind mi dafa wax ne képp ku bañ sa mbokk reykat nga te almasi bi yéesu rax ci dolli ne waxuma la sax bañ waaye képp ku mere sa mbokk dinañu la àtte ca safara kon yow miy wax naan mbir mi soxalu la loo xalaat ci loolu mbind mi wax soo waxale yàlla rekk ndax mën nga wax ne mësuloo mere sa moroom ndax ñeme nga wax ne mësuloo bañ kenn ndax mësuloo xool nit rekk neexu la nga xalaat walla sax nga wax ne kii rekk laa bañ man amul kenn ku mën a wax ne mësula yëg lu ni mel kon nag sama waay xamal ne mbind mi nee na saa boo mësee yëg lu ni mel mu jëm ci keneen mu ngi mel ni danga rey nit kooka ndegam nag noonu la ko yàlla gise kon ñaata yoon nga rey sa moroomu nit ci dëgg li mbind mi feeñal fii lu xaw a naqare dégg la waaye lu am la wareesul mere nit mbaa di ko bañ wolof njaay sax dafa wax ne nit kenn du ko bañ naka noonu kàddug yàllaa ngi nuy artu naan ku mer bu mu jàll aw kaañ bu jant bi sowaale seen mer ba ngeen may seytaane bunt ndaxte ci xol la xalaat yu bon yi di jóge ak boom ci loolu kon yow mi xool nit rek bañ ko mu ngi mel na danga ko rey fakkan kan yàlla mi àttekat bu jub bi yaa ki rey dara leen waaye itam boom yemul rekk ci faat bàkkanu keneen am na yeneen fànnay boom yu ñu war a bàyyi xel lu ci mel ni xaru maanaam faat sa bakkanu bopp dañuy wax naan xaru daganul te muy dëggit kon bu nit àndeek sagom faat bakkanu boppam moom ak ki faat beneen bakkan ñooyem kepp noonu itam naka ki nga xam ne moom reyul nit faatul bakkanu boppam waaye mu santaane ñu reyal ko keneen li nasaraan di tudde commanditaire li wér mooy kookule it fa kanam yàlla moo yem àtte ak ki rey dafa mel ni li wolof njaay naan sàcc ak ku ko yebal ñépp ay sàcc lañu noonu yow mi reyul sa moroomu nit ba noppi toog fale ne xiim dëgg la mën nga ñàkk feeñ fii ci àddina waaye li wér mooy àtteb yàlla bi lay xaar moom doo ca mën a rëcc mukk su fekkee ne bi ngay dund jotuloo réccu fa kanam yàlla te nga nangu yoonu mucc wi mu tëral ba tey ci beneen fànn boom lii di yàq ëmb itam ci la bokk ndaxte yàq ëmb rey nit la nanu ko wax mu leer yonent yàlla daawuda bindoon na ci saboor naan yaa ma sàkkal baatin ràbb ma ci sama biiru ndey maa ngi lay sant ci li ma nekk mbindeef mu xel dajul te yéeme say jëf ñooy kéemaan xam naa ko bu leer say bët ne ma jàkk fekk may béeméeru kese te ñu bind ci sa téere fan yi ñu ma àppal laata benn di ci nekk cëy yàlla ni ma say xalaat soxale ni lim bi yaatoo bakkanu ñépp la yàlla fonk te ci lu wér yàqum ëmb rey nit la moo tax ñu war ko leeral ci bopp nit ñu koy faral a jëfandikoo ngir dind ëmb bu ñu yitte woowul ñu bare sax xam nañu ne baaxul waaye dañu koy naxasaale ba mujj far kenn tegatu ko muy dara moo tax ngay gis nit nekk ci moy ba yenoo cab ëmb mbaa sax mu ëmb ci yoon waaye bëggula am doom ja rekk noonu mu dogu ci yàq ëmb bi daldi def ay déebaa déebam ak i xarfa fuufaam ba ëmb bi dañ bu ko defee nag ñu naan ndeysaan ndogalu yàlla la déedéet ñi naan yàllaa ko dogal ay naafeq yuy tuumaal yàlla lañu naka lañu mën a xalaate ne yàlla aji sell ju jub ji mën na dogal ñuy faat bakkanu muumin te nag su mbir mi doon dogal sax dama ne loxol borooma nga ca yàlla nag moom ay waxam du safaanoo te jegewul fu ñuy defe lu bon moo tax mbind mi ne yàlla aji leer la te genn lëndëm nekku ci moom bu la fiir galanee bul ni yàllaa ko dogal ndaxte yàlla jegewul ak mbon fenn du fiir kenn waaye ku sa bakkan nax ba mën la looloo lay dugal ci fiir kon bu bëgg-bëgg ëmbee bàkkaar lay wasin te bu bàkkaar màggee jur dee danu ko war a wax mu leer ki yàq ëmb ak ka ko yàqulu yépp ay boomkat lañu doom jooju ndax dafa dul boroom bakkan waaw su fekkee ne boroom bakkan la nag ana lan la def ba ñu koy buum bu daf dee am kay ña sabablu ba doom ja juddu ñoo ñoo def lu jar ab daan ndaxte doom ja moom waxul kenn mu ëmb ko yàlla aji sax ji rekk mooy ki am sañ-sañu rocc ruu waaye du nit su fekkee ne daw gàcceeg tiis moo la ko jaraloon mbaa bokk sàmm sa dara ja ci bëti nit ñi walla leneen lu mu mën a doon bu mu la ko jaralati ak nu mu mën a warul a tax kenn di jalgati santaaneb yàlla bile yàlla du tebbi ay waxam mukk te bakkanu nit dafa foor lool fa yàlla ba tax mu wax ci kàddoom ne bépp nit ku rey moroomam dina layoo ak man ku tuur deretu nit nit dina tuur deretam ndaxte yàlla ci melokaanam la sàkke nit wareefu nit ci moroomam du boom ko ndaxte amu ci benn sañ-sañ li nit di xarala ak xereñ lépp du yàgg ba mu sàkk nit boroom ruuw ni ko yàlla sàkk ci pëndub kese kon wareefu nit ci moroomu nitam mooy mu bëgg ko di ko aar ba safaan du ko gaar bala kenn di mën a def loolu nag faaw mbëggeelu yàlla lalu ci xolam waaye naka la mbëggeelu yàlla di nekk ci yow su fekkee ni danga sofental pexe mi la yàlla may ngir nga mën a jot mbëggeelam nekk borom diine walla woote daraja taxul nga jot mbëggeelu yàlla koo mën a doon ni la yàlla di xoole moo di bàkkaarkat nga terewul nag yàlla firndeel mbëggeelam ci doomu aadama yi bi ñu nekkee sax ay bàkkaarkat moo tax yàlla daldi yónni kàddoom di almasi bi yeesu mi yonent yépp daan yégle ak dikkam noonu bi borom bi yeesu ñëwee moom ci boppam nee na bu ngeen toppee samay ndigal dingeen sax ci sama mbëggeel ni ma toppe ci sama ndigalu baay ba tax ma sax ci mbëggeelam genn mbëggeel mënula weesu joxe sa bakkan ngir say xarit naka noonu lenn rekk a mën a firndeel sa mbëggeel ci yàlla aji sax ji moo di nga gëm ki mu yónni kon yow mi déglu gis nga ne doo mën a bëgg yàlla wala sa moroom mukk mu dëppook ni ko yàlla bëgge te gëmuloo jëkk ki yàlla yónni di reenu xolam Yesu Kirist moom mi la bëgg ba joxe bakkanam ngir yow mbind mi nag nee na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 waaye doo ko sax xalaatal lu bon am déet kon moo xam danga mësa fitnaal nit walla nga mësa bóom ci fànn bi mu mën a doon waaye itam boo dee sax ku mësula def lenn ci mbir yooyu li wér mooy mës ngaa ñàkk bëgg sa moroom walla nga mës koo mere noonu xamal ne àtteb yàllaa ngi la tiim lenn rekk moo la ci mën a rawale mooy nga gëm benn musalkat bi am kepp di Yesu Kirist moom aji mbëggeel la ndax jekk nga ngir wekk sa yaakaar ci moom ak li mu la defal ngir mu may la dund gu bees li nga war a xam mooy yàlla dafa sell te ku sellul du ko mën a jege fenn ci bëti yàlla nun ñépp danoo mel ni ay boomkët ci fànn yu bare wante xabaar bu baax bi mooy yàlla ci njubteem ak ci mbëggeelam sàkk na pexe moo ko mën a jege maanaam amal na li mu dige woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam mu di ñëwu kàddoom di ruuwam mu wàcc yor bindu nit dund dund gu sell dee ca bant ba ngir sunuy tooñ dekki ngir àtte nu jóg mbokk mi ndax loolu leer na ndax xam nga bu baax lu tax yéesu almasi bi waroon a tuur deretam ca kaw bant ba waaw def na ko ngir amal li yonent yi bind ci mbiram wante it li nga war a gën a xam mooy yéesu Kirist dee na ngir yow tuuroon na deretam ni sarax suy dindi bàkkaar ndax yow ndax man ci lu wóor sunuy bàkkaara ko boom kon sunu ko gëmee yàlla dinanu baal àtte nu ni ñu jub ci loolu mbind mu sell mi sax dafa wax ne boom ngeen aji dundal ji waaye yàlla dekkal na ko tuub leen seeni bàkkaar nag te wàññi ko ci yàlla ngir seeni bàkkaar far ndax te yonent yépp seedeel nañu yeesum nasaret ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam kon xarit yi fii lanu leen di tàggoo émission bi ñëw ndegam soob na yàlla dinanu tàbbi ci juróom ñaareelu ndigal li ba gis li nu ci yàlla bëgg a xamal su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li Yeesu wax ne boom ngeen aji dundal ji waaye yàlla dekkal na ko tuub leen seeni bàkkaar nag te wàññi ko ci yàlla ngir seeni bàkkaar far